di wax ni ñun waa Mbourkat tey dañoo woote woon assemblée général tey doon wax ci tolluwaayu liggéey bi nga xam ni depuis décret déclassement wàcc ci Mbourkat ba tey euh, ñu ngi ci nekk di ci liggéey waaye tey ñu bëgg a andi ay leeral yoo xamante ni bii euh, leeral yu am solo ndax loolu moo sabab tey assemblée générale bi ndax dafa am ay information yu bëri yoo xam ne dafa wàcc jamono yii ñu weesu euh, ñuy wax ni dafa am ay nit yu ñu fi jox ay terrain yu xaw a bëri yoo xam ne ay 600 parcelle ak yu kenn xamul ba presque jaxase ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñun te comprendre ñu li xew ñu ci bëri jàpp ni ñoom it daanaka ci loolu ci 600 euh, parcelles yooyu ñoom ci lañ bokk ñuy wax ni ñun fi ñu nekk zone à régulariser la c'est les 135 hectares zone boobu la ñu wax kenn ku ci nekk fa nga nekk dañ lay defaral kayit jox la bu fekkente ni da ngaa nekk foo xamante ni bi tey ci mbedd la wala dara ñu ñu jël leen ñu rëk ñu ñu ñu recaser leen moo tax tey ñu woote loolu mais nag di wax ni fii ñu nekk nii tey Mbourkat président Macky Sall mu ngi décrété quatre cent quatre-vingt-quatre hectares ñun en deux mille vingt-deux ñun collectif Mbourkat ñun ci loolu la ñu yem ndax su ngeen seetee xam ni décret yi daanaka ñaari décret yi du ñu benn presque décret boobu ñëw na ba presque def na un an et quelque ñuy door a déggaat beneen décret te beneen décret boobu président Macky Sall bi mu ñëwee ci conseil des ministres ci la ni Thiès dinaa ko def benn dëkk euh, ñetti gaar dinaa fi def terre dinaa fi def lii après la dem defaat beneen décret këyit yooyu nag di génn ci côté boobu ñun suñu yoon nekku ci ñun këyit yooyu ñun concerné wuñu. mooy fu ñu tuddee Thiès ville de Thiès nga dégg nga gis kayit yi ñu def ci Noto Kër Mousso ak yooyu yooyu concerné ñu ñuy wax population Mbourkat. nañu gën a dalalaat seen xel te xam ni liggéey bi procédure yoon bi mu jël yoon bu ama am solo la te yoon bu jub la te yoon bu bu bu bu set wecc la bu leer nañ la ndax boobu ba léegi ñu ngi gis ni gisaguñu kenn ñu jël alalam jox ko keneen amu fi gisaguñu kenn koo xamante ni bii dugg na fi rek raataloo rek ba am fi dara loolu amul. ba tey ñi ñu koy jox mooy ñi nga xam ne ñoo fi am sonn fi seen ñaq wadd fi ñu am fi ba tey jii ci loolu. waa ñu ciy xalaat pour ànd ci saafara parce que sànq rek def nañ ko ci biir assemble bi ku mel ni Samba sax wax na ko sànq di wax ni yu mel noonu ku ku xam ki mu dendaloon pour ñu jéem a fexe euh, pour xam ko parce que kooku dafa gaañu dafa décédé. yeneen yi ci yeneen yi ci des gis nga lu mel ni saanoxo li ñu ko wax ni mu wër ci artère yëpp. daal di wax daanaka am na ñoo xam ne ñun gëjoon nañ leen gis ci réunion Mbourkat mais tey bu ñu ñëwee ñu fa jëlee information mën na information mën naa dem ba yegg foo xam ne pratiquement ñun sax duñ ko mën a natt côté boobu moom ñu ngi ciy def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la ndax collectif bi dafa am benn bureau boo xam ne vingt presque chaque jour ba dimanche sax dañ koy liggéey boo ñëwee ci place bi dinga nga leen fekk foofu. loolu moom dañ cee am njort bu rafet képp koo xam ne am nga Mbourkat terrain muy terrain nu muy pen muy lu mu manti doon. jàppal ni di nga jot ci sa alal waaye li ñuy wax rek ñiy gàmm ak ñiy raas déem yamuñu ndax gis nañ ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi génn di wax te yàlla mi ma tiim xam na ni mënuñoo fexe ba wax ñu seen terrain mu ngi nii ndax olof Njaay dañuy lu ne fàng kenn du ko jeex ba tey mënuñoo wax ñoom seen terrain mu ngi nii. est-ce que kayit aussi wax maanaam mën nañ laa andil acte de vente man nañ laa acte andi acte de vente boo xam ne main levée la wala dara loolu mën na nekk. waaye mun mënuñu laa wax ni ñoom seen place ngi nii te collectif bi ñun xamante nañu ndax liggéey nañu liggéey boo xam ne sur sur le terrain boo xam ne kenn ku ci ne da ngay taxaw sa terrain ñu ñëw ñu jël ko ñu identifier ko ñu jël ko ñu yóbbu ku mënta wax nag sama terrain fu mu nekk wala ci ci paramètre bii daal laa nekkoon côté bii laa nekkoon loolu aussi nekk loo xamante ne bii lu leer la ñuy wax nag nit ñu bëri ñu ngi raataloo ñu ngi wax wax jaa ngi bari ci ci média bi ak yooyu ñu ci bëri amuñu fi dara. waaw vraiment euh, euh, muy gouverneur muy le préfet. muy le receveur des domaines muy cadastre muy service technique yëpp urbanisme wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla xam nga parfois soo dee wax sax euh, parfois boo dee wax sax nit ñi mën nañ koy gisee neneen mais yàlla mi ma tiim xam na ni ñun lépp lu ñuy def rek ci njub lañ koy lañ lañ ko fas yenee def dañ ñoo boole ci liggéey bi ci loo xam ni lu jub la ci loo xamante ni bi lu leer la ci loo xamante ni bi amul caaxaan ndax tey jii Alain man foofu laa koy féliciter receveur des domaines dama koy féliciter à cent pour cent ndax xam nga lu tax tey jii am na fi kayit boo xamante ni bii génn na fi boo xamante ni bii dafa dafa rëcc du dem ci borom lettre 2006 bi fekk borom 2006 bi ak fondation bi ñu ñu ngi ko doon pen bi ñu ngi doon xëccoo mais bi loolu amee dañoo arrêté chantier bi arrêté lépp ñu mu ne leen ko demal ci collectif ba kooku ñëw fii ñu uti solution waxtaan ba am ci solution ba ñaar ñëpp am. loolu yëpp ci ak njubam lañ la la la koy defee. kon daal leen bàyyi yéen liggéey bi ko eggalee ñëpp ñu régler allah dañ koy régler ci ci ci ci lu leer ci mu set bi ci di wax sant nag ñoom monsieur Goudia bi franchement ñu ngi mën a liggéey boo xamante ni liggéey bu extraordinaire la au niveau du domaine. waaw mu Goudia bi kan jàlloo même ñi ma ñoom ñëpp. franchement ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne ci mburkat parce que c'est pas évident que ñu bi benn bureau pour bureau mburkat boo jugee fii dem dem dem impôt boo ne bureau Mbour 4 ñun la ma nga a loolu ñëpp ko xam chaque jour que jëfee kayit yaa ngi génn nit ñaa ngi jot kon loolu ñu ngi ciy remercier administration waaw di sant nag vraiment mu Mamadou jaxate parce que man man kookit mu ngi def liggéey bu extraordinaire aussi ci ci Mbour 4 moom it parce que moom moo defar moo defar borne yi moo defar plan bi moo def loolu yëpp loolu it mu ngi fiy def liggéey bu am solo di dalal xel nag waa Mbour à 100 pour cent di leen di dalal seen xel bu baax di wax ni kenn ku ci nekk incha allah fa nga am di nga jot ci sa alal kenn ku nekk nag na nga ñàkk sa alal parce que ñii gàmm aussi ak ñiy raas dem yamuñu da ngay am sa alal nekk ca nit jóge fële ci ay pexeem ak yu mu manti doon ñëw di ko def waaye collectif baa ngi fi lu ñu fi gis loo xamante ni bi ak jubadi la wala ak caaxaan la incha allah dinañ ko dénoncer. waaw kon vraiment ñu ngi sant ñëpp di sant bu baax nag les journalistes sama ko sama waa ji wax na ko yéen amuñu seen fay ndax mburkaat bu yeggee ci dimension bi mu yegg si c'est grâce à vous kon leen dañ leen di remercier di leen jaajëfal encore une fois ndax tey jii bu ñu amee décret de classement yéen joué ngeen ci rôle boo xam ne rôle boo ama am solo la ma bëgg nag ñëpp muy administration yëpp ñëpp gën leen a bàyyi xel ndax ba ngeen cee bokk te yéen a ngi ci biir mbir mi kon ñu ngi leen di sant leen gërëm. Merci Merci à la presse. Merci de rehausser par votre action quotidienne la dignité de l'éminente fonction de journaliste dans le fonctionnement d'une démocratie. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à l'ensemble des populations de Mourkat qui s'est mobilisée comme un seul homme pour faire face aux innombrables difficultés rencontrées dans le site de Mourkat. Merci à tous les interlocuteurs. Que Dieu unisse nos cœurs pour l'éternité. C'est avec une immense plaisir, euh, fierté que le collectif de Mourkat a invité tous les habitants et propriétaires de parcelles pour prendre part à cette importante assemblée générale faisant l'état des lieux du processus de régularisation des terrains conformément aux dispositions de mise en, en place par les autorités administratives et les services techniques. En guise de rappel, le collectif des habitants de Mourkat, dirigé par M. Mamadou Sissé, communément appelé Pape Sissé, avait porté la voie des négociations jusqu'à la prise de décision de l'ancien président de la République, M. Macky Sall, de signer le décret 2022-1441 du 25 juillet 2022 portant le déclassement de 484 hectares de la forêt classée de Thiès, région de Thiès, pour des besoins de régularisation de la situation des occupants de Mbourkat et d'harmonisation de l'urbanisation de des zones polarisées. Cette superficie de 484 hectares répartie en trois sites est bien limitée par des coordonnées géographiques. Le site déjà occupé a restructuré et a régularisé 135 hectares le site réservé au lotissement d'extension de Mourkat, 176 hectares. Les sites réservés à l'extension de la ZAC, la zone d'aménagement concertée, 173 hectares. En effet, les autorités et les services rattachés en charge de l'exécution du dit décret ont pris les dispositions utiles, nécessaires réglementaires pour gérer les plans de lotissement, de restructuration et d'extension, le plan de zonage de l'assiette. un autre décret numéro 2022 1442 du 25 juillet 2022 ordonnant l'élaboration des plans d'urbanisation de détail et prescrivant les mesures de sauvegarde. Prescrivant euh, au nom de l'État du Sénégal des sites non encore immatriculés situés dans la zone déclassée. et créant l'extension de la zone d'aménagement concerté de Thiès pour donner suite aux dispositions réglementaires de gestion de l'assiette foncière, la commission régionale de conservation des sols composée de la gouvernance, de la préfecture, des collectivités territoriales et de tous les services techniques, l'urbanisme, le cadastre, les domaines, a impliqué positivement les membres du, bureau exécutif du collectif des occupants de Mourkat dans le processus et la dynamique de restructuration, de régularisation du site déjà occupé qui couvre encore une fois un, un, euh, une superficie de 135 hectares. C'est ainsi que des stratégies participatives et inclusives ont été mises sur pied pour faciliter l'activité dévolue aux techniciens du foncier. L'exploitation du plan général de lotissement de, 2000, euh, de Mourkat dans les 135 hectares l'identification des détenteurs de lettres d'attribution et des actes de vente dans la zone du lotissement de 2006, le recensement dans la transparence de tous les propriétaires terriens, maisons habitées, maisons en construction, peines et soins ou encore les espaces appelés terrains nus. Le contrôle physique, vérification par les techniciens du cadastre et de l'urbanisme, l'attribution directe de terrain de numéro d'enrôlement, pour mieux identifier les occupants. Les dépôts de carte nationale d'identité ou pièces à conviction des déclarants propriétaires au siège, du, euh, au siège social du dit collectif pour un éventuel contrôle qualité avant l'acheminement des dossiers au bureau des domaines. Maîtrisant la configuration de cette partie de terre déclassée, le collectif des occupants de Mourkat avait fini, avait fait une, un pré couvrant la zone du lotissement de 2006, celle des maisons démolies qui n'ont pas été prises en compte par l'huissier de justice et la partie nouvellement lotie allant jusqu'au quartier route de Dakar extension pour permettre aux services techniques de mieux asseoir les fondamentaux de leur plan de travail préalable. Dans ces exercices difficiles d'orientation, de recensement, de vérification, de contrôle, de coordination, Le collectif des occupants de Mbour 4 a admirablement prouvé à suffisance que le problème des populations constitue inéluctablement sa priorité. Le directoire du collectif profite de la solennité de cette rencontre pour remercier vivement les services techniques, à savoir l'urbanisme, le cadastre et les domaines qui, qui, ont constamment, qui sont constamment restés dans le temps de l'action, de la sensibilité sociale, par la veille, l'écoute minutieuse et la proximité. La diligence de ces différents acteurs a permis aux propriétaires des dossiers déjà validés de recevoir leur acte d'attribution de, de, terrain. Ils ont traité les bénéficiaires, les attributaires, avec respect et considération. Cependant, il est important, voir nécessaire, de souligner que Mourkat a connu trois séries de démolitions sur le même site par le service des eaux et forêts en 2009, la mairie de Thiès-Ouest en 2014, la direction de la surveillance du contrôle de l'occupation du sol, la DESCOS, en 2021. À l'issue de cette douloureuse épreuve de démolition de 2021, le collectif, en parfaite collaboration avec les concernés, ont engagé un huissier de justice pour recenser minutieusement les personnes impactées suivi d'un rapport succinct établi à cet effet. Cependant, la situation ci-dessus illustre à suffisance le travail abattu à grande échelle par le collectif de Mbour 4. Je rapidement vous faire la situation des statistiques. La régularisation des, euh, des attributaires de 2006 des, et des occupants. Nous avons 3646 lots dans le site de, des 135 hectares. les no les lettres établies nous avons deux mille vingt cinq dont mille quatre mille sept cent soixante treize déjà récupérées et deux cent cinquante deux non récupérées par les ayants par des pour des raisons d'inaccessibilité téléphonique les lettres non encore établies nous avons mille six cent vingt et une lettres mais parmi ces lettres-là le pourquoi ces lettres-là ne sont encore établies il y un problème de téléphone qui couvre, n'est-ce pas, 160, 91 dossiers, des problèmes de carte nationale d'identité, 234. Les terrains nus, nous avons 1196 terrains nus. La situation particulière des victimes de démolition, nous avons le procès verbal de constat de, constat de de l'huissier, maître Seynabou Diagne Faye, révèle qu'il y a au 157 cas répertoriés. Parmi eux, nous avons 59 ont déjà reçu leur lettre d'attribution. 98 n'ont pas encore reçu pour défaut d'information. Et quand vous comprenez par là, un défaut d'information est surtout lié à la pièce nationale d'identité, au numéro de téléphone. La situation des démolis de 2006 qui ont perdu leur parcelle dans la zone à restructurer, et qui doivent être recasés. Nous avons un total de 975 cas. Et parmi ces 975 cas, ils ont recensé 734 cas euh, de, recensement dont les lettres sont disponibles, Ndaou. Sur les 935 cas répertoriés, il ne reste seulement que, deux, que 241 cas et cette situation est susceptible, n'est-ce pas, d'évoluer. en attente de compléments d'information pour régularisation. Nous avons tous les débats de controverse, chers journalistes et chères population de Mbourkat, tous les débats de controverse se situent particulièrement à ce niveau précis. La plupart des contestataires avaient des parcelles dans la bande située après la voie de contournement. Le collectif des occupants de Mbourkat a reçu et continue de recevoir malheureusement des coups de partout dans le seul et unique but de perturber les actes positifs et progressistes déjà posés. Ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui fait mal, mais si tu te retournes et que tu vois celui qui a le couteau, c'est ça qui pose problème. Dans ces, parmi ces gens qui ont plusieurs fois accompagné le collectif dans les séries de recensement sur le site, parmi ces gens qui ont ce couteau-là. Il y a des gens qui ont longtemps cheminé avec le collectif sur le site pour visiter les parcelles. Ils se sont retournés pour, liguer, en se liguer contre le collectif. Le directoire du collectif a toujours milité pour l'équité et la transparence. Mais il est difficile, très même de diriger un groupe de personnes. En effet, il y a trop d'aigris, excusez-moi du terme, de haineux dans ce groupe, dans ce pays. Comment peut-on ternir l'image de digne fils de Mourkat De quel droit s'arroge-t-on pour juger, sans jauger, le sens et l'impact de nombreux et multiples actions sociales, humanitaires posées par le collectif de Mourkat Je me demande parfois si réellement le Ngor et le Djom sénégalais, tant incarnés par nos ancêtres, par nos valeureux ancêtres, sont toujours considérés comme des principes vitaux. C'est vraiment horrible. Calmez-vous, Comprenez pourquoi le silence est le langage préféré des sages et que la liberté d'expression n'est pas libertinage expressif ou, de diffamation à outrance. Arrêtez de raconter des balivernes. On a tout compris. Rapprochez-vous davantage, s'il vous plaît, de ces valeureux membres du collectif de Bourkat qui travaillent d'arrache-pied, nuitamment et concomitamment avec les agents assermentés des services compétents domaine urbanisme et cadastre au siège social du collectif vous trouverez toujours des hommes et des femmes dévoués à la tâche qui qui réservent un accueil chaleureux et qui donnent du sens des conseils et des orientations satisfaisants la plupart des personnes membres de ce collectif n'ont pas attendu d'être dirigeants pour être serviteurs du, du peuple sénégalais en effet Chacun de nous a dans son ADN de la générosité désintéressée, de la bonté naturelle. Notre éternel combat reste le bien-être, n'est-ce pas, des populations de Mbourkat. Rien de plus. Loin des appartenances politiciennes et des considérations subjectives. Apprenez à distinguer le vrai du faux, le mal du bien, le bien du mal. C'est fondamental chez un humain. Donc, des armes, bien, des armes bien, bienveillantes, comme celles des dirigeants, ne méritent pas des critiques stériles et puériles des femmes, n'est-ce pas, et d'hommes qui, connaissent, qui ne connaissent même pas le plan de travail établi. Que nul n'ignore que ce problème de Mourkade va bientôt finir. Nous serons tous des cohabitants. Je répète encore que nous serons tous des cohabitants. Ces hab chers habitants, fidèle collaborateur de Mourkat, ce site constitue un symbole fort. Nous devons assumer cet héritage partagé, ce vécu ensemble. Nous avons co construit des choses. Nous avons vécu des, des défis que nous devons relever ensemble. Nous avons, comme, n'est-ce pas, euh, connu des hauts et des bas. Mais cela ne doit pas cacher cet îlot de belles choses que nous avons euh, construit ensemble. Il faut un dialogue fécond dans le respect mutuel, mettre en place un excellent dispositif de compréhension mutuelle. Il faut de la tolérance, de l'ouverture. On ne peut pas s'emmurer, se dresser des péridots, se dresser farouchement des frontières étanches, penser être le meilleur et accuser les autres de tous les torts. Nous devons prendre le, euh, en, euh, la pleine mesure des défis actuels, la renaissance du citoyen de l'universel. nous devons avoir un seul élément de mesure de nos actions combinées pour atteindre notre objectif principal. Quel est cet objectif principal, chère population de Mbourkar et chers journalistes Cet objectif principal, c'est permettre à chaque propriétaire terrien de Mbourkar de recevoir son acte d'attribution de parcelle de terrain. Accordons le même ordre de priorité au règlement définitif de ce problème foncier qui empêche les, les propriétaires de faire de gros investissements. Partons, portons avec conscience, avec conscience le plaidoyer pour la stabilité sociale, la paix et la défense des intérêts de notre adorable Mbourkat. Mobilisons un consensus général qui balise désormais la voie pour l'adhésion historique du commun vouloir de vie commune. Le collectif redit avec insistance sa gratitude et ses sincères remerciements au président Macky au gouverneurs de Thiès, au préfet du département de Thiès, au directeurs des domaines, au directeurs de l'urbanisme et à tous ses partenaires, collectivités territoriales et surtout les organes de presse. Surtout les organes de presse. Les organes de presse ont joué un rôle déterminant dans ce problème de Mourkat. Ces organes de presse ont conçu, ont soutenu et accompagné surtout les populations de Mbourkat dans un esprit d'équité et de solidarité. Et je m'arrêterai là pour dire, je pour dire, lancez mon cri de cœur, lancez le cri de cœur du collectif. Debout tout le monde, debout tout le monde, le travail continue. Vive Mbourkat, bon courage aux veillants membres du collectif. Je ne peux pas terminer sans pour autant dire ce que mon homonyme, mon défunt homonyme, qu'Allah, n'est-ce pas, l'accueille dans son paradis. Il a toujours l'habitude de me dire, Aliou, je le cite, la seule chose qui n'a pas d'ombre, c'est la lumière. Fin de citation. Qu'Allah, le maître des desseins, le Seigneur de l'univers, nous bénisse abondamment et qu'on nous comble euh, suffisamment de grâce. Amin. Merci infiniment pour votre écoute attentive.